Serigne Mustafa, ñëpp xam nañ ko ci taxawayam, yamul ci posture chef religieux dong mais dafa bokku ci kilifa yi gëm ni ñi bàyyi ci këru diiné yi duñu wara impliqué wu ci langue politique bi ndax benn élite yenn xeetu doomi aadama yi ñoo fi yàgg nekk te bëggu leneen lu bokkul ak ñoom dugg ci anam gi ñu yoree réew mi rawatina kilifa diine yi depuis indépendance bépp nitu diine bu essayé engagé wu ci politique fii Sénégal faagaagal nañ la li ñuy wax ni histoire la ci sëriñ Cheikh lañ ko tàmbalee ba muy dugg ci politique ñu bari comprendre duñ ko woon dañu doon wax naan sëriñ du politique. mais quelques années après gannaaw ba ñu bàyyeek ñi nga xamante ni ragaluñ yàlla ay franc-maçon lañ toq imaan amuñu ko jiite suñu réew mi depuis indépendance gis nañu résultat yi bu ñu fàtte nag ni ñoo ñu doon jàppalu sëñ Cheikh di ko tëj di ko néewal doole parce que loolu lépp am na fi. ña daan def loolu noonu jamonoy parti socialiste seeni héritier ñoo fi nekk ba tey dugg doomi daara yi ci langue politique bi ak sëriñ si arrangé wu leen te daañu leen combattre par tous les moyens lii faamu leer ndax ñoom li ñu gëm mooy kilifa diine yi dañoo war a toog seen roq bu ñu intéressé wu ci anam gi ñu yoree réew mi seen yoon newu ci ndax dañoo am influence donc nañu toog rek yam ci yàlla nee na yonent bi nee na bu ñu amee soxla wax ko nguur gi mu fajal leen ko lii la politiciens yi mës jàppee suñu kilifa diine yi Nous ci mel ni Moustapha dañ na ñoom parti dem du pouvoir ndax ci réew ko itam opposé malgré appel yu bari yu def. puisque nous dañoo nekk ci réew moo xam ñu ko yor dañoo am philosophie benn ngëm-ngëm mooy ku àndul ak ñoom daañ la jéem a faagaakal nee les parti ci bari président.

ay jàmbaarloo juddu ñu wut ku ñu mu dif diaboliser ko ba sénégalais yépp jappé ko nitu fitna yi ay pex yu salte yu nguuru Macky Sall tam di def la té rafetul déjà nañ ko ak wa PUR ci campagne présidentielle yu 2019 yi ci Tambacounda ba am ñu ñàkk seen bakkan ñu don top dossier bobu nonu xam nañ ni ab militant benno boko yakar mo provoquer won dem di affiche PUR lo xamni du dëgg du yoon ay ciow dal ci juddu cortège PUR perte seen sang-froid xeexoo am ba présenté wu mais buñuy rapporter fee yi information bi buñ ñu koy jibal du wax la provoquer mbir yi loo xam ne mais information bi ñuy mettre en avant moy wa PUR ray nañ ay doomi jambour pour diaboliser len gamu bu 2020 bi wessu tamit ñu attaquer wat cortège seigne sëñ Moustapha defoon nañ ko 2019 defat ko 2020 ba ci jamono ay Ngouille Ndiaye après di ngeen gëna comprendre lan moo tax ñu gën a dàq Aly Ndiaye indi Antoine Diome parce que moom Aly Ngouille dafay maslaa mën nañ ko sant benn mbir mu jëm koo def mais du ñemee dem jusko bout donc bi ñu attaqué waate cortège yu sëñ Moustapha mbir yi jàllul comme niñ ko bëggee woon parce que Moustarchidine riposté wuñu Aly Ngouille Ndiaye tamit ñemewul dem jusqu'au bout ci lañ amal gàmmu 2020 champ de course te programme nguuru Sénégal moo ne woon saboté cortège yu Mustapha, ba ba lo am ñu annuler gamu bobu nonu ñu bañ ko jëmmal rappel yi ñuy def dafa am solo parce que moy tax ngeen comprendre fi ñu nara jëm. ma bëgg wax ak sénégalais yi tout ci lima ma xam man ci PUR parce que sénégalais yi amna ci ño ba légui so waxé PUR dañ koy jaawalé ak daïra naam président PUR kilifa diine la am ay daara yoo xam ne Sénégal yëpp xam nañ ko waaye le PUR est un parti politique et l'un des plus grands partis politiques du Sénégal sama ànd ak PUR ba bi ñuy commencé ànd am na lu tuuti lu ma xamoon ci PUR waaye ci ànd bi laa découvrir ndekete li Sénégal am ci liñu wara gëna mëna ragné ci ay intellectuels ay cadres les mieux formés au Sénégal et dans le monde ñi ngi ci biir PUR. ci suñu and ak PUR lañu jang ni xam-xam ci politique xarañteef ci politique ak gis-gis ci politique. boo koy wër ñëwal fekk ci waa PUR ci suñu ànd ak PUR lañu découvrir ni ñin li ñu gëm ñun waa Pastef te ñu nekk ci Yewwi Askan yëpp gëm ko mooy ni politique lañ ñu bëggoon gëmloo ni mooy politik mooy naxaate jëlloo moomul digeloo gëmul jël alalu réew mi ak manque loyauté ndekete loolu du politique de gis nañ ko ci pur ba mu mat sëkk. moo tax ma ne yéen waa pur laay waxal suñu ànd bii du caaxaan du nen suñu tànk seen tànk seen tànk suñu tànk da ne quand c'est pur je Mais quand je m'engage, c'est pur. Est-ce que dégg ngeen wax quand c'est pur je m'engage mais quand je m'engage c'est pur suñu nous gi ni ñu nawee pur ci li donne, donne. C'est couleur reflétée. plus bonne couleur moo que le vert et le blanc ces couleurs, ces couleurs de notre religion, mais ces couleurs de ma verte Casamance, Moi, tax li ma booleeg pur bëri na xam nga tey ku dugg ci te ci stade bi boo moytul est-ce que du ale Casa moo fi nekk ndax couleur yi ñu muy le vert et le blanc. Yallah, tax la victoire sans rivalité inch'Allah. moo tax.

xam nañ ni suñu ànd gii ñu ànd yeewi askan wi ànd googu mooy soppi Sénégal ba faw est-ce que gëm ngeen loolu est-ce que gëm ngeen ni dans douze mois bu soobee yàlla dans douze mois bu soobee yàlla kay jiite Sénégal ak ñi muy àndal ñu jiite Sénégal est-ce que xam ngeen ni génnul fii xam ngeen ni génnul yeewi askan wi incha allah. yuutu que ko ni ko ci limam ñak fayda la ñak fayda la te li len président Sonko wax sank ni dañ koy app ba ci nañ ko app ba ci ñun pas amul satisfaction yi ne ce qui satisfaction parce que yaq bi ci rew mi ëpp na lu ngeen ci xam nag xam nañ ci téeméeram waaw ndax góor gi fi nekkoon yàlla ko bindee li mu xam ci réew mi mën na wat ci alquran ni keneen xamul lu ni toll waaw te mas na ko dégg mu ni li ma xam bu ma ko waxee ñu suul réew mi mu ni waaye mën nañ may bal di ma bal ba gaañ ma te li ma xam duma ko wax waaw waaye moom moo fa toll waaw bu ko defee kon nag mën bu may dugg ci lii lu ma nit di jaay amul waaye itam am na ñoo xam ne ay gor lañu ci dara ñu mel ni ñun di leen seetaan xaram na ci ñun keneen nag ko ku bëgg a dugg feneen yaa xam mais ñun ci suñu conscience tranquille ànd ak gor yu mel nii moo gën a dal suñu xel waaw bu ko defee kon nag li ñu am yëpp mobiliser nañ ko Toutes les fi élection locale les élections législatives fi élection législative ak yi ñu Nous élection présidentielle présidentielle on verra ko yàlla nangoo nga xam ni yàlla ko nangu ku ko nanguwul it nga xam ne nanguwu ko waaw kon nag yi ñii lañuy ñuy ñaanal yàlla ci barke mag ñu baax ñi ak ci barke yonent bi yàlla leen yàlla jox ndam jox leen ndamu biir jox leen ndamu biti ngeen am ndam ci local yi am ndam ci législative yi présidentielle yi ngeen yéeg waaw incha allah waaw ndax bu boobaa xëy na sénégalais yi bokk noy yi tuuti ah mu mel ni nag jaru leen ñu di leen wax dara yéen a gis li fi xew ak it li tax nit ñi di ànd ak yéen kon nag bu ngeen fexee ba yaakaar tasul rek

Abdou Diouf ak xexam ba dugal ma il faut dire la vérité maître Abdoulaye Wade ñoko ko ba mu yegg fi mu yegg xaw nak ndax fay na naar bi xoromam wala déet kooku nak mom moo koy tontu bu ñettel bi nak kenn duko waxale ndax li mu yàq ëpp na wax naa leen ko fii bés ni leen li ma jaaxal mooy bi mu commencé jël mandaam ba léegi ku baaxoon ci Sénégal faatu nga billaahi wal kilifa diine yeeg kilifa politik yeeg boroom alal yeeg ñépp faatu nañu te lolou ci rew dafa am lu muy firi fi rewu leer la leer rek mo fi mo fi bax mais buñu démé ba ay fétiche ay yenen ak yenen mom lañ fi doxal lolou rew mi atanu ko motax nak na ñëpp takku na ñëpp taxaw bu fi kenn ragal dara dund ak dee rek am sëriñ Cheikh Tijaan yi nag laa dégg mu ni ki lay ëkku ni la dama lay rey xamuloo ndax moo lay jiitu ci bàmmeel walla déet waaw moo tax ku ne wakiilu ci yàlla rek xam li ngay def bañ a tooñ kenn sellal sa mbir te bàyyi yàlla yor li ci des waaw